du pouvoir de ah, l'opposition donc mais ah, wax sax ba fàtte man maa ngi ci parti politique yow moom yow moom franchement je dis la ma tasee yëpp parce que jaaxal <laughs> parce que <laughs> parce que ñun boo xoolee suñu liste dugal nañ ci ay doomu daara mhm. yoo xam ne jaaruñ école mais jàng nañ alxuraan jàng nañ arab dugal nañ ci ay ex détenus dugal nañ ci enseignants yi bëri nañ ci trop. des dugal nañ ci ay procureurs. loolu mosul am Sénégal. Hmm. ay avocats parce que xamul daa. am na kay man seen procureur bi parce que xamul daa parce que dafa am fu ñu jëm tey lu mel ni haute cour de justice tey boo ko bëggoon installé. Hmm. baax na ci moo am fa ay expérimenté yoo xam ne. Ah c'est des juristes waaw xaaral non c'est-à-dire non un non un procureur laa la wax waxuma ay juriste mais un un procureur ñu dël ko def ko ci liste. ah man en tout cas dans l'histoire politique du Sénégal c'est la <laughs> première fois ma gis ko mm-hmm. ça veut dire que ñun ñi ngi bàyyi xel contexte yi ñi nga xam ne moom moo nekk suñu kanam parce que tamit bu fekkee da parce que assemblée nationale bëgg na ci nga xam ne day taxaw di wax en tant que député ñu bañ ko xoolee bëtu parti politique bi mu bokk mais ñu xool ko bëtu am na au moins benn corporation boo xam ne tey bu fa taxawee di wax mm-hmm. bët boobu lañ koy xoolee te loolu c'est très important xam ne tey dafa am fu mu bokk mm-hmm. avant sax muy ñuy wax waxu tey koo xam ne par exemple silmaxa la par exemple xam nga kooku tey bu taxawee assemblée war a wax mais balaa waxal kenn dina waxal ñi nga xam ne. moom li muy li nga xam ne moom moo ngi koy dund. dina dem pour représenter ñooñu tey doomu daara bi def la même chose enseignant bi def la même chose loolu dina tax ñi nga xam ne tey bu ñu jàkkaarloo ak un ministre du ñu def comme ni ñu daan def bu njëkk taxaw fa daan ko man député Ousmane Sonko laa wala député Bassirou Diomaye laa non su boobaa non loolu ndaa ñu ñoo leen njëkk a sanctionné parce que xamul tax xaaral ma ñëw parce que xamul tax parce que Pastef mun nañ politique mais gis nga suñ politique des fois dañ koy wutal ay frein gis nga la preuve bi ñu tànnee bi ñu defee liste yi mais am na ñu bëri ñoo xam ne man mii di wax ak yow tey bu ma sañoon tey ku mel ni doyen Kébé euh, Kër Massar. Hmm. magi Pastef xam ne moo ko jiite au niveau départemental bu ma sañoon gis ko ci liste yi man mii am na ñoo xam bu ñu sañoon gis ma dañuy toll foo xam ne bu ñu fa tolloo. Hmm. non dañuy jël suñuy personne ak suñuy intérêt tegee ko ne la jël intérêt Sénégal teg ko nee naa la man maa la ko wax fii tey bépp député boo xam ne tey yàlla dina def nga bokk ci liste passif ba falu assemblée taxaw fa di wane ne yow député euh, Bassirou Diomaye nga wala député Ousmane Sonko waxuma sax ñun patriotes yi mais ñoom ñoo leen njëkk a sanctionné te bul yaakaar ne ñun dañuy jël suñuy député rek def leen ci ay liste yóbbu leen assemblée no dañ leen di wax ñoom nañ fa war a taxawa taxawee te loolu du premier ministre wala président la république moo leen ko mais ñun ñi nga xam ne ñoom nga bokkal parti ñoo la boo fa demee hmm. nekkaloo fa Pastef cest à dafa am loi mënul ñàkk parce que loi bi moo ko institué mënoo bañ a bokk ci parti politique wala ci mouvement pour nekk député il faut nga jaar hmm. mais boo demee ba taxaw assemblée nationale nekkaloo doo fa sa parti nekkaloo doo fa sa bopp c'est vrai parti bi nga xam ne tey fal na la lépp loo xam ne intérêt la foofu di nga ko défendre loolu moom bu buñ ci naxante quoi. mais bis boo demee ba gis na yow sa parti bi li mu bëgg a teg c'est contre l'intérêt des sénégalais da ngaa war a taxaw xeex ko quel que soit foo mënti bokk tey am na koo xam ne tey ku mel ni maître El Hadj rek laa xam ne ci àdduna moom loolu dinaa ko nangul parce que tey booy wax euh, li nga xam ne moom moo jur tey ay mouvement 23 juin. mais boobu ci mouvance présidentielle la bokkoon. mais bi ñu bëggee teg ticket président. mu xam ne lii nekkul loo xam ne ànd naag li nga xam ne loi bi loolu la. wax. te kii président bi bëgg ko teg après doomam la bëgg a imposer dafa taxaw xeex ko pourtant. loolu mooy rôle lu député. tey ku mel ni Guy Marius Sagna ak ñeneen ak ñeneen ay ku mel ni ay bëri na bëgguma lim tur mais am na ñoo xam ne tey man leer na ma ne tey bu ñu taxawee et puis am na si ñoo xam li tax ñu dugal ci liste yi tamit c'est quelque part pour réparer une injustice. parce que tey ku mel ni maire Amidia tey bu ñu ko dugalee ci liste yi mais képp ku bokkul Pastef sax da ngay applaudir parce que ban benn parti politique nga bokk ñu koy wax Pastef nga jëlee fa feebar mhm. xam nga génn mais kooku normalement tey pour am benn acte de reconnaissance boo xam ne euh, vraiment wan parce que li may wax dafa am ñoo xam ne dañ leen fal ndax seen compétence mais am na ñoo xam ne dañu leen fal ndax seen xeex seen taxaw loolu c'est important dina tax dina encourager ki nga xam ne ëllëg dafa bëgg a xeexal dëgg dina ko encourager moo tax man ne la ñun suñu liste ku ci xool rek laa la wax war na tax nga voter liste boobu. parce que mhm. toutes les couches sociales yi nga xam ne ñoo. pare ngeen pour am majorité. non ñun xam nga majorité dafa am ñaari façon. parce que li fi amoon bii passé du woon majorité dañuy wax euh, waa Benno mais waa Benno li ñu amoon du majorité. li ñu li ñu amoon parce que majorité boo xam ne il a fallu ko benn. benn benn parti wala benn mouvement trahir coalition am yokkal leen benn wala ñaari. député mhm. pour ballottage am ñu naan ëppale na benn wala ñaar loolu tax ñun li ñuy wax majorité mooy au minimum ñu am. cent quarante députés. <laughs> te foofu ñun foofu lañ taxaw ñun suñu objectif c'est cent quarante députés lu ci tegu nag ñu jël hmm. mais suñu objectif moom mooy dañoo bëgg am benn majorité boo xam ne vraiment bu ñu ko tegee warante du am te dinaa la wax benn affaire gis nga euh, rupture bu ñuy woote bàyyil hmm. ba gars yi ñu jox majorité di nga gis député bu taxaw wax pare di ne mais kii est-ce la bokk hmm. parce que bu yéegee ci kaw bi day jël carte membre Pastef Pastef mu tegee ko ne ba kon Massar am nañ fa trois députés trois yu ñu investir yoo xam ne ñu ngi Pastef mais am na fa yeneen deux yoo xam ne bokkuñu Pastef c'est des alliés te alliés yi nag yaakaar naa ne tamit jox nañ leen bu baax cër ci li nga xam ne surtout liste nationale bi. jox nañ leen fa cër trop. kon nga xam ne ñun bàyyiwuñu xel affaire ñun député député du peuple lañ soxla mais soxlawuñu ay député du président ou bien d'un parti politique. Mm-hmm. te incha allah on fera <laughs> ah élection yi moom comme li ñuy wax suñu slogan yi dafa leer quoi man depuis sànq depuis fan yëpp loolu laay wax nous on ne vise pas une majorité on vise la majorité absolue. waay. la majorité absolue la cohabitation kii affaire yooyu yëpp tout ça là xam nga le tout ça là. Hein, ça dépend en fait de la qualité et du type de député que tu as. ça dépend aussi de la tête bopp bi su baaxee c'est li si des ci cër yi yëppay baax. mais boobu su bonee si ça te donne des couromaques à la à l'Assemblée nationale <laughs> et cetera et c'est parce que gis nga tu as des députés de qualité. tu mm. pourras travailler sur des projets de loi de qualité doo toog di naan di xëy soo xëyee matin bi de assemblée ne présenté lan la wax wala lan la bëgg ñu votel ko non tu doo toog toutes les lois que tu votes dans l'année benn kese nga la nekk proposition de loi li si des yëpp e présidence lay jógee ñu dugal ko pour ñu voté ko. Mm-hmm. donc y a en dehors de l'Assemblée nationale et tout députés et tout ça là dafa am ay nit yi nga xam ne ils jouent ils ont ils le survie politique am na nit yi hmm. pas nelaw sax parce que nelaw day fekk nga dara waaw mais affaire bi bis bu jotee ba kii se rendre compte qu'ils sont totalement perdus c'est leur fin politique ils n'existeront plus y a des gens yi nga le peuple les a vomi ba léegi ni Donc ça n'arrivera pas. Si on veut mettre la place, en place la haute cour du juge, il faut 3 cinquièmes de l'Assemblée nationale. Donc, quel que soit Alpha, nationale, lui, c'est l'une des élections les plus importantes de l'histoire politique du Sénégal. Parce qu'il y a tellement de dangers. Ensemble, il y a deux blocs principaux qui s'affrontent. Mm -hmm. Le système, anti-système. Il y a bloc dans, dans, dans le système, de femmes, ils jouent le sauvetage waaw am yi nga xam ne ñoom ils tirent sur tout ce qui bouge ah ils le long terme am yi nga xam ne nii ñoom instant bi ni ils sont obligés de s'agglutiner à des coalitions quitte à sa que ce soit une coalition bi nga xam ne ni mu àndul ak seen critère politique wala àndul sa ça ne les colle pas pour pouvoir exister wala survivre. et puis bokkum am na ñoo xam ne doguma la sax mais ay immunité parlementaire. maa ngi maa ngi soo ñëw am na ñoo xam ne ñoom. ils ont des dossiers. day nekk di wax te ratatati rek comme jéggi la ratatatatata mais dossiers yi ñoo xam nañ que suñu tëddee duñ nelaw wala saa su nekk ñoo ngi seen téléphone pour jëm a xool naka la ñuy négocier parce que ils ont des dossiers donc instant bi ni ils vivent leur survie leur liberté donc il faut ñu dem dugg assemblée nationale pour ñu mën a nekk député soi-disant am une immunité mais. Mm-hmm. Macky Sall l'histoire li ma wax y a des précédents au Sénégal Macky Sall jël na fi ay député de la République tëj leen ci biir kaso bi. Mm-hmm. immunité parlementaire dañ koy tëbal. donc ces gens-là ñu nekk député nekk nekk député si on doit faire sauter leur immunité parlementaire l'immunité parlementaire sautera pour qu'ils aillent rendre compte à la justice waaw donc l'Assemblée nationale bi c'est pour que le Sénégal en dehors de tout cela là waa système waa anti-système ñoom dañoo bëgg a bi pour doxal dëkk bi il faut une assemblée nationale bi nga xam ne tu as une majorité majorité absolue bi c'est pour pouvoir mettre la a amnistie ah, bi fii li ce qui s'est passé au Sénégal kan moo rey. di baal koo xamul koo rey armes yi armes yi fan la hmm. on ne sait rien de tout cela ñuy xëy ne dañuy amnistie dëkk yi nga xam ne sax dafa am conflit ba ñu créé loi d'amnistie dafa am commission réconcili vérité et réconciliation. Hmm. y a rien qui a été fait. Hmm. ñuy xëy du jour au lendemain ñuy crime de sang et crime politique. loi d'amnistie boobu de toute façon loi d'amnistie à part waa que seen magu yi ak li ñu doon def leen leen doon protéger seen gars nekk fii di def la sale bu loolu leen doon protéger puisque bu ñu tëbalee eh, loi boobu nag incha allah ba teg la haute cour de justice ba commencer les réformes et les projets de loi qui seront déposés avec les des de haut niveau. Mm-hmm. parce que si tu as des députés de haut niveau tu auras des débats de haut niveau bo boobaa Sénégal dina xam ne que instant moo ngi ci yoon jógee ci guuta bi mu nekkoon. Mhm. Saliou su ma la déggee dafa mel ni yow euh, tiitoo ci opposition bi comme ni ko Jibi waxee nee na opposition bi mën nañ leen tere nelaw de. Euh, opposition bi. ci mhm. euh, opposition bi bon peut-être Amadou Ba peut-être Amadou Ba mais instant bi il faut man je toujours à l'élection présidentielle qui n'était pas une élection présidentielle mais un référendum. Mhm. Ah, parce que population bi dafa jóg ne en de Macky et de tout ça Parce qu'il y avait Macky Sall, mais il y avait d'autres personnes qui étaient là. Euh, il y avait Amoudouba plutôt. Il y, avait, il y avait Macky n'était pas là, mais il y avait Amoudouba, il y avait d'autres personnes. Mhm. Moi, à ASNN. waaw comme kii nu mu koy waxee. Sall sérieux gay gay loolu mooy borom nen ya waaw mooy borom nen yi nga xam ne dama baxal nen baxal nen bu muy am ay lex. waaw waaw ay seen nen ñoo ngi ci c'est ça en fait soo analyser les scores on se rend compte que la population n'a plus confiance en une certaine. qualité wala un certain type de politi doomu de de politicien mooy waa système bi waa système bi lañ jël tegee ko ne tegee leen nele léegi naan nag ñoom instant bi am na ñi nga xam ne ñoo fi nekk téye mic bi comme rapport yi ñu ngi koy waxee waaw di wax di convoquer conférence loolu rek lañ mun statut ak convoquer conférence de presse ndax bis mu wootee woon ne ka leen ñu fekk dañuy meeting dis personnes du fa am wala ils sont obligés de payer booy mille cinq cent dañu ku fi woote mm-hmm. woote fii fan yi passé rek booy yi génn journaliste bi génn ne booy nu yéen ñooy fekk mhm. añ bi la. c'est le bétail électoral. Mhm. c'est leur tradition payer les gens pour qu'ils viennent assister au meeting ne monsieur le président tout va bien waaw macha instant bi la population est derrière toi gars yi dóor mooningam après dem toog jàpp ñaar gars yi ñu ko ay nen. donc instant bi ni si soo xoolee bu baax dans dans si tu tu compares par rapport aux élections présidentielles. a mooy chevaux de course yi lan laa waxoon ci fas yi ñaari façon fas moo am les pur sang ak le tocards. ñaari façon te pur sang yi instant bi nii mooy waa anti système. waaw ñooy façon naaru góor yi nga xam ne soo ko soo ko tëkk tëkk ak ñoom di si ñeneen ñi moom waa sàmm sa kàddu ils pèsent rien ils sont